clan. clan loolu way way fii loo xam ni. Mhm. boo ko déggee buur ba sa màkk sax jug taxaw. Mhm. Sénégal du la la faale. xam nga kañ la lay faale. Mhm. nga def yëfi dof. te dafa am giir gu moom yëfi dof. am giir goo xam moom moomuñ yëfi dof. man xaw ma yëfi dof man yëfi nit laa xam. man su ma mënta bind lu luy jariñ askan. boo xoolee singal yi ma def yëpp. ça parle man damay bind parce que benn mag dafa ni way tàmm naa si ngëneel bi yeete ba ku dégg safaan jim koo moytu bul nax sa bopp parce que yow am nga si doom am nga si ay mbokk peut-être mën na laa dégg si leen changer mais boo xoolee xoolal xoolal xoolal album yi fi na yëpp génneel ma benn moo buy benn moo bu jariñ bu yonent bi wax wala bu sëriñ Tuubaa wax wala benn nit bu baax kilifa diina si dëkk bi fii wax ko génne ma ko doo ko. pourtant ma ko waaw mais non buzz. mooy li ma la xam nga mooy. xam nga xam nga. est-ce que du gars yi si bàyyi xel wala bokk di ñële je sais man boo xoolee euh, variété yi may def variété yi. wala télé yi la wala rajo bi fépp la yàqu. fépp la si télé yi. Mhm. da nga yóbbu musique bu am sens bu def vidéo paroles yu am. importance importance duñ ko valoriser les rajo fa zaalik mhm. man dama opté musique laay def. kon su may def musique dama war a nekk un bon exemple dama war a yeete. reporter de voix dama war a wax luy dama war a wax luy luy jariñ mais bu ñu nax gis nga am na yoo xam ne am na loo xam ne fii rek lay nekk ah Sénégal rek lay nekk. fii rek lay nekk. Euh, di nga jouer soirée dina fees dell sabar bi tamay jolli mhm. mais non man man maalaw man dama opté def musique way luy jariñee man loolu laa opté.